musuma dem concert Wally Seck damay toog woo Wally Seck Wally Seck wuyu ma. Mm-hmm. ah dañ bëgg yërëm rek parce que tamit ak li koy jàppee sa yow. mais euh, booy yow chien ah. booy bu koo nga bu mën a yàq émission nga quoi. nga naan ma dañ lay yërëm ak ah booy. yow dama lay seetaan des fois da ngay am émission ak yenn gars yi mais da ngay da ngay def yëpp yëpp xaj dëgg ah. mooy mooy kii bi. mooy nga bëgg ma dapalaane non nañu bàyyi. non non non non non non non non non non non non maa la ko ñaan ma ma ma ma déglu ma ma ma day ma day ma ci émission bi la bokk ma dof non wuy ma ci émission bi la bokk ma dof dof ci émission bi la bokk ma ma day day day day day xam ni junni lay jar ma yàq si yow cent mille fekk ba may génn suma yaay mi ngi naa ma doo ma jëndal foofu fonde ma hmm. nga ko nga jox sa yaay junni bi léegi dem nga si baar bi gars yi naan een eh, daanaan bi ñëw na jox ko ñaari beer andil benn kees baal ma sunu yaay euh, mu ngi doog a connecté wu <coughs> dëgg bu wér waay dafa bari allo yaay booy. ñu ngi lay ziar. ñoo ngi delloo ziar accord d' accord d' accord waaw d' accord. après ñu ngi lay xaar ci plateau bi. Ah. après ñu ngi lay xaar ci plateau bi waaw. <laughs> waa Amérique ñoom ñu ngi noonu ah. ayca mu nekk lu am solo ah. waaye ndeysaan moom mu ngi mu ngi suivre donc ñoom ñëpp. macha allah yaram yi dafay daw quoi bu ñuy. Mhm. mooy lire commentaire yi. Hmm? Amadou kamara nee na bonne continuation à Dof voilà ñoom ñëpp ñu ngi apprécier émission bi. Mhm. mais tey euh, style musique bi sànq kii brossé na ko façon musique d'accord ñu jëlaat sunu yaay mu ngi noonu di di doog ñëwaat alo ñu ngi lay ziar. yaa ngi en direct ci DTV Dof Ndeye mu ngi ci plateau bi. ñëpp ñu ngi lay déglu actuellement nii Sénégal ak Amérique ak ñëpp a ngi lay déglu. waa salaamaaleykum waa DTV. waaleykum salaam. ñoo ngi leen di baax. Mm-hmm. di ziar ñëpp. Mm-hmm. ah di ñaanal borom kër gi defe naa ni yàlla. yàlla yërëm ko. Ah, mm-hmm. defe naa ni juumuma sama petite sœur fa doon liggéeyee gañ si liggéey. ah maman gañ si <laughs> waay ndeysaan ñoo bokk benn baay. ndeysaan macha allah ñu ngi ñaanal benn baas. alaaji benn baas waaw yàlla ko yàlla yërëm. Ah, mhm. di leen di leen wan ne tamit Sénégal yëpp. Mhm. diaspora bi en général. Mhm. ñu ngi ànd ak ànd ak yéen ci seen combat. parce que kenn du bàyyi yëf yi